ak soññee boo xamante ni da koy def ci képp koo xamante ni jàpp na ne dangay ngay liggéeyal Serigne Touba moo tax mu boole ñu ci jotaay bi di wax ne li muy def nii ñëpp la koy defal senegal la koy defal Afrique la koy defal humanité la koy defal ndax kii nga xamante ni moom moo tax mu sabab daje bi tey kooku humanité moo ko indi woon ci kaw suuf Afrique moo ko indi woon ci kaw suuf Sénégal moo taxoon ak défendre Sénégal ak défendre ëllëgu Sénégal ak ci contexte bi mu fi ñëwee woon loolu moo taxoon lépp lu ko dal lépp luñ ko teg loolu moom moo ko waral li ko yitteel dëgg nag te sëñ Amidou ci journée bi mu bokk ci li ñu war a génne te ñi fi jaar ñëpp génne ko mooy nan la ñuy def ba ñu jëriñoo ko ba mu mën a dimbale ñu pour ñu régler sunuy problème mu tey ak sunuy problème mu ëllëg sunuy problème mu àdduna ak sunuy problème mu àllaaxira muy un travail historique ndax sëñ Amidoune bi ñu ci waxtaanee dane ma juillet 1927 juillet 2021 jot nañu def ci taxaw seetlu ma ne ko loolu de boo ko defee ñëpp nga ko defal ndax muy ñi jiite diine ji muy ñi jiite réew mi dañu am njukkal bu rëy boo xamante ni daf leen war seen diggante ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dafa am un travail historique boo xamante ni réew yëpp yi développé développement yu am solo dañu koy def jamono bu nekk waaye nag souvent dafa am luñ koy jaawaleel surtout ci sunu réew yi mooy un travail mémoriel un travail historique mooy inventaire boo xamante ni dinañ ko def ci lépp loo xamante ni xewoon na lu ñu jiitu ci taarix amul xàjj ak seen dañuy def rek inventaire sans complaisance le travail mémoriel moom mooy ñëw ci ginnaaw travail mémoriel bi moom mooy am yitte ci nit ñooñu nga xamante ni ñoo jaar ci askan yooyu ci communauté yooyu ci jamono yi ñan lañ ci war a rendre hommage ñan lañ ci war a célébrer yan date lañ ci war a célébrer ak yan date moo ci matuta célébrer ak yan nit ñoo ci matuta célébrer loolu mooy le travail mémoriel mooy li nga xamante ni sëñ Amidou moom lay def nii tey mu nekk liggéey boo xamante ni moom moo nekk nag à la base mooy sëñ Assane Mboup wax na ko léegi de tout développement économique et social su fekkee ne dañoo bëgg mu harmonieux mooy le capitale humain de qualité mënumaa ñëw nag ñuy waxtaanee juillet mille vingt foofu la ak juillet deux mille vingt et te évoqué wu ma ci koo xamante ni def ci jouer un rôle fondamental muy sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacké ndax li tax ma koy tudd damay souvent bu may waxtaan ak suma xarit yi dama leen di wax ne leen néew na sax nga gis fenn ñu ne la sëñ Modou Moustapha nee na. parce que jamonoom c'était fondamentalement le temps de l'action mu def liggéey bu am solo ci yoonu murit waaye amee woon une intelligence sociale boo xamante ni képp koo xamante ni mënoon nga ko dimbali ci liggéey boobu indi na la boole la ci liggéey bi mooy capitaliser ak dajale li nga xamante ni moom mooy les ressources humaines de qualité yi nga xamante ni moom la yoonu murit amee woon jamono boobu muy ci jumaa ji ak yeneen yëpp jamono bu nekk xool na ñan ñoo mën a dimbali yoon wi sur le plan intellectuelle et moral mu jël leen yóbbu leen ba ci à la table de négociation ñam fa doon yóbbu dafa nekk ay nit yoo xamante ni du ñu wuute mukk ak pas-pasu Cheikh Ahmadou Bamba waaye seen pas day am solo lool ci dimbali ko ci liggéey boobu nga xam moom lañ ko fi bàyyil Sëriñ Tuubaa li ko indi woon ci kaw suuf mooy nan la ñuy def ba doomu aadama retrouver toute sa dignité loolu moo xeex mu xeex loolu moo tax mu xeex ak toutes les formes de domination et d'aliénation yi amoon muy que ça soit occidental ou oriental nan la nit ki di def ba yëkkatiku ba assumer sa dignité dans sa plénitude loolu tam mooy combat bi tey li sañ Moussa ko wax ko rek ne ko ñan noonu woon njool màkk sax noonu njool màkk waaye noon bi day changer forme waaye du fi jóge kon xeex bi du fi jóg jamono bu nekk dañuy defaat beneen beneen forme de lutte et de combat pour exister parce que c'est un combat existentiel te Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul daf ñu ci dimbali ci moom dinaa ko am Cheikh Ibra kay ñun la dimbali ñax ñun ñoo fi fekk bàmmeel ndax boobu mu ngi jàkkaarloog jëmm ji si zahir waa ñun nu ñu def ak bàmmeel bi ndax ñoo ngi koy dimbalikoo ci suñu quotidien wala déet ndax ñoo ngi koy dimbalikoo ci suñuy corporation wala déet ndax tax na tey jii ñuy résister à toutes les velléités toutes les tares qui empêchent à l'homme de d'exercer la plénitude de sa dignité humaine mhm. c'est un vaste chantier boo xamante ni sëñ Omar mhm. dina moo ngi ci sunu kanam sëñ Amidoune teg ci un jalon bu am solo bu fekkee ne dañuy daje nii waxtaanee ko fàttalante daal di dem suba ñu nekkaat ci lu ñu nekkoon dafay des il faut que jamono bu nekk ñu xool nan la ñu amee un devoir de suite par rapport à ces vastes chantiers yi nekk suñu kanam te ñoom ñu assumé woon seen responsabilité de génération ñun suñu bos moom moo des par rapport ak li nga xamante ni ci la ñu jëm enjeu yu bees ñoo ñëw forme de combat yu bees ñooy am forme de lutte ñooy am mooy am chaque jour on doit remettre le métier à l'ouvrage jërëjëfe Cheikh